leeral waaye ñu xam ne mbéy mi càmm gi napp gi bokk na ci luy développer am réew waaw fii moom yamul ci rek euh, mbéy meeg ñoom seen am na nag loo xam ne moo ñu tax a jóg moo di jën yi loolu euh, dinañ ci waxtaan euh, léegi ak moom ak it ki nga xam ne moo nekk ci tool bi mën nañoo wax sax jiwriñ la ci tool bi moom itam dinañ ko dégg Matar Kassé bul yaakaar nag ne lii mburu la kii du mburu la <laughs> du mburu bu ngeen ko gisee nii nag cey ci cey cosaan daanañ ko san sangoo muy ay njàmpe njàmpe la xam naa ne eh, ñàkkul sax eh, imam dina ñu wax ci lii eh, ca kanam waaw kon nag daal ñu xam ne reeni koom-koom mi ngi fii ci ngent ci Thiès nuyu nañu bokki Thiès RTS Thiès ngeen ko waaw nuru na mburu Matar waaye njàmpe la njàmpe la boo xam ne ci cosaan moom ah, day dindi ay ay nag yooyu waaw loolu xam naa ne kilifa gi imaam euh, Mor Talla Gueye sëñ maam Mor Talla Gueye euh, dinañu ci euh, indi li leer loolu laa ko njëkk a laaj sax lii ma yor nga ne. waaw mooy garabu njàmpe la. soo xoolee euh, forme bi. dafa xaw a nuru comme genre concombre. waaw concombre. bu màgg bu màgg day nuru comme genre garabu lëgët. Uh-huh. Ah, day law day law comme xaani mi lawee. Uh-huh. mais day law di yéeg nag. ah day law di yéeg moom la ñuy gis ne. waaw ci cosaan nag. Uh-huh. ay xeeti kurobët ay xeeti cité ay xeeti xesan ay xeeti lépp luy métti yëpp da koy faj. yooyu yëpp da koy faj waaw ah, da koy faj fi ne boo ko rukkee ba nooy nëpp. Ah, day mel genre odeur bi muy génn boo koy sangoo di génn ay xesan ak yëpp da koy dindi waaw. lii kat am na solo. moo tax nañ si dégg garabu garabu njàmpe. garabu njàmpe. <laughs> maa gis nga naan kii day xaw a niróo mburu. mburu waaw Matar laay wax ne kii ah, waaw mburu yi daan jar juróomi dërëm yooyu. xëy na ñu bare bare xamatuñ ko. Mhm. mais garab gu am solo mais en général lu ñu béy moom day law ci àll yi. mais dañ ko daa wër. tooyee day nuru ak yomb. Mhm. yomb cere. kasaale ko xam yomb am solo la am vitamine la. yomb ci cere mi ngi mel ne navet mhm. ci ab ceeb. ci ceeb waaw xam day doole ndox. day doole ndox ah, xam loolu moom ah. cosaan loolu moo baaxoon ci yaram yi ci bari nag dañ koo bàyyi am na feebar yu génn ak yooyu yëpp dañoo bàyyi loo xam ne maam bàyyi woon na ko fi eh, ah ya ngay dem faneen di wut lu dindi xasan yi di si gën a gaaw boo ko saan def ansandar def sangoo ko rek waaw mu taggoo yow ci saasi imaam damaa bëgg nga présenté wu nag yow yaay kan waa man maa ngi tudd Mor Talla gane jamono dëkk bu tudd kër Ibra Gueye fële ca boori xombal boori tubaatul waaye maa ngi nekk fii actuellement ngent Nasru nekk ak sama kilifa Serigne Assane Kane borom Nasru moo sanc bërëb bi. yàgg nga fi. waaw depuis ñu ngi fi sanc ñun 1995 96. ak dinañ fi ñëw. man nag daari alxuraan laa yor di jàngale maa yoral daara ji en même temps yoral ko jumaa ji ci jumaa yi nasru gi waxtu juróom yëpp ak ajuma ji nooy def xutba yi ak yëpp nag. waaw waaw ah, ah, yow sax jot du bari. waaw jot gi bariwul jot la téléphone yi jafe na. waaw <laughs> nag moom mooy sunu yitte mooy sunu baas xam ne jàmm yàlla mooy sunu mooy sunu yitte bu baax a baax. su ko defee actuellement. Mhm. dañuy liggéey ci wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu activité. waaw wàllu activité nag. activité waaw activité jëm ci wàllu mbay. Mhm. jëm ci wàllu pisciculture lépp luñ ci wàllu ci wàllu aquaculture rek dañ ci yàlla dañoo may li ñuy nekk nekk dongo daara dañ ciy gëstu ba ba mën caa jëf aslëf ah, kon gëstu nga ci mbiru eh, jën jën yi kon jën yan xeeti jën laa fi mën a gis danañ bay fii jën bu tudd calarias moom la war war di tudd kong dañ ci defaree géej kong en même temps tubaab yi di ko tuddee calarias yi ñu togg ci sulux mbalaxoog ñoom seen di ci sulux mbalax di ko tudd ci ci maafe di ko tudd ci kaldu kaldu surtout kaldu am na ñoo xam ne kaldu macha allah jëm jëm bi daal dafa présenté wo jën bu neex la boo ko dañ jëfandikoo comme jën yi nga gis ci am ay yax yu sew bari liwu ko jën bi nag mën na màgg ba tollu ko tollu ko neex mën na dem ba euh, mat cinquante centimètres mën na quarante mën na quarante Ah. ah bu tolloo foofu eh, day day dem sa marché ba xanaa. waaw day man wala mu wees marché ba sax man man man man dañ ko soxla waaw ah. ah, mën na mën na mën na dem 900 grammes mën na dem 1 kilogramme mën na dem 2 kilo ba cinq kilos jën bi mën na koo mat. bu juddi ko saa rek bu amee 6 mois moom jën boobu des na ko mën a commencé jëriñoo lu mu gën a màgg nag di gën a rey mën na jënd mën na mën na dund 200. ñaari at mën na koo dund. mën na ko dund te du dee waaw. Ah, bu dee. <laughs> doomi doomi doomi doomi benn jën bu mën na jur cent mille fois ah, mën na jur cent mille doom waaw. Ah, ci ñaari at yooyu daal mën na fee. lu bare benn benn juróom rek. benn parce que jën boobu en général ñun ñi koy jural fi duñ jur naturellement duñ ko def. Euh, mooy bi waaw waaw waaw ah jàpp nga benn. Eh. <laughs> Mhm. gis nga xaw na maa tooyal waaw waaw tooyal ñun ñun ba ba tey baax na <laughs> Matar ah. dafa bari doole actuellement. waaw dafa bari ah. actuellement fi ne jën bi. waaw boo ko seetee boo ko seetee jigéen la. Mhm. waaw ni mooy mandarga bu jigéen bi. waaw ni euh, ni may signalé mën naa jur. waaw waaw li li nen la li nga gis la waaw boobu si tuuti rek. da gis ah, day daal di am nen day ah, am nen waaw fii ni jën bi mu enseigné waaw ni taay bi mën naa gën a gudd uh-huh. mais moom bariwul waa sintóor am amu ko amul waa sintóor enseigné amul nii jigéen ñi koy defar mhm. lay bun bun buñ ci noppee ñoom dañ koy soodee ah. suñ ko soodee li si kaw comme ab der bu der bu ndaw la moom moom nañuy dindi rek teg ko buñ ko dindee nag boobu moom noonu nañuy dindi li si des lépp ndawal la lépp lépp la loo xam ne bii mooy bu jigéen bi uh-huh. buñ dee defar production ñun ñoo koy defee fii waaw boo demee ba ci biir ba am na néeg na ci biir ñoom fi la ñuy juddoo actuellement dafa am ay xeeti médicaments yu ñu leen di boole rek. nii mel. dafa am na bu am na bu xaw a mel ne bu bu verte foncé. waaw lii mel ni jib nii. dafay giri dafa am ay tupp tupp ok nii nii noonu am na leneen nga daje bu ñuul kukk. Uh-huh, uh-huh. xam nga dafa am ñetti xeeti jën am na bu ñuul kukk am na bu chocolat encore am na boo xam ne nii day giri day rafet nag macha day rafet waaw Ya jin bu am solo la nak ci ci en général bu dé dex yi dañ koy am mhm. Ah bu dé dex yi dañ koy am waaw mais du duñ jur naturel ñun ñoo leen di jural. Ah, loolu moy lan dañ leen di jural manam waaw ñu jékki nii rek. Euh, waaw comme bu ma bu tollé ci jurni nii. Ah. ñun ñooy testé gis na nen bi dama ci waxon waxoon nen ngi di génn sa nen bi. Ah. nen yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu actuellement. gis nañu amee ah, doole dafa am doole fi ne nii bu xam naa ni euh, ku néew doole du ko mën a téye waaw ah, léegi gis nañ ne gis nañ ne ni muy ak tey nag ay nen la ah, fi ne moom damay xamal ni mat naa mat naa am doom mat naa am doom macha allah non du ko yàq test la rek waaw ak tey nag mhm. ay xet yu day dem nii fi ne jën bi waaw na génn Euh, de heures de temps sans ndox te du dee mën na ko ëpp sax actuellement. Ah, ñaari waxtu mën na koo génn ci ndox mi. te du dee te du dee waaw. bu dee yeneen façon jën bi ne fee nga xam ne ay waas lañu moom boo ko génnee même pas dix minutes vingt minutes rek bu mu tudd di ko ñàkk. waaw waaw bu mu tudd ci fee jëm ci cin la. ci cin la lay jëm. <laughs> xam nga jën moom. mbëndum jën dafa dagan. Ah, ah, waaw ndax loolu lislaam moo ko santaane jën ak géej. miitatuhu wa maa'uhu lépp euh, dagan na ndoxam dagan na dagan na sangu janaaba dagan na jàpp jën bi kasaalika méddam dagan naa lekk mooy miitatul baxar yi. di ko géej moo tax ñu di ko géej gi ci la ñuy defaree kecax encore mais jën bi nag dañ koy def ci xeeti ñam yëpp en même am na ñu ko def géej gi bu nekk ci géej gi mooy tudd koŋ. Ah, foofu lay tuddee fii ne ñoom fii na ñuy ndey fi. kon kon bii nii yii bi ngi ñu woon léegi nii. Ah, ah. mën na dund ñaari at. mën na dund fi mën na dundaat lu ëpp li mu dund. Ah. te macha allah day gën a rëy. te te lu mu amagul at xam na. waaw fi ne mi toll si ay 11 mois. kii 11 mois am gën a an. d'accord manqué na waaw. fi ne ba léeg sax ay doomam mën naa màgg ba ëpp ko de. doomam mën na màgg ba ëpp ko. parce que ñoom ñoom noonu fi ne jën bi mën naa màgg ba ëpp ndey ja. <laughs> jën yi nag day am day am ci façon yooyu. ñoom wax dëgg yàlla ñoom ñoom ñoom lañu tudd ay géniteurs ñoom ñooy jur moo tax ñoom duñ leen bëgg a jaay duñ leen fi suñ soxlaa reproduction rek danaa la woon léegi fi ñuy defee reproduction bi. ñu dem foofu man ñu dem fi ñuy defee reproduction bi ah waaw kon de noonu la ñuy def Matar Kassé euh, defe naa ne yow jën hmm, ma bàyyi noonu rek. <laughs> imaam te dugal ngeen ñu nag ci benn euh, néeg waa néeg bi moom nuñ ko mën a tuddee. waaw néeg bi Abdoul Khadir moo tuddee écloserie écloserie maanaam bu doon ci hôpital yi nga xam moo lay tuddee crèche. ah crèche la maanaam gune gu matul ak ñu di ko kii fii lañ koy indi. crèche ñoom fii la ñuy juddoo. actuellement bu ni ma la expliqué léegi jën boobu te nen yi bu fekkoon tey damay def reproduction dañuy génne nen yi. suñ ko génnee nag def ci yéen ci war a def ci ay bagages ñoom fii lañ leen di indi su ko ndey ji leen koy bàyyi mu dem day day dundaat. day day ko nii koy libéré su yi nag fii lañ leen di indi lii moo tudd kiliyet kiliyet ah. mooy kiliyet. waaw moom luy wàllam. lii bu boobaa fii la ne ci biir ndox mi hmm. moom dañ koy def nii waaw bu nekkee ci biir ndox mi nee du du du nuur ah day fay ci kaw. waaw que yii ma koy téye waaw ah. euh, yii ma ba nen yi ko war a defaree. waaw. Ah. bi actuellement. day tàng day lëndëm. day tàng day la loolu lañ soxla parce que jën daa daa bëgg lëndëm. suñ ko fi bàyyi nag dañuy xool euh, température d'eau bi. su fekkee maximum dalaa jox 30 euh, pour cent. bokku ko fi bàyyi 24 heures net rek nen ni nen ya toj waaw kon nen dañu da toj nak nga gis day jur dom yu bari bari macha allah. dom dom yi doom yi nag gisee comme ay feppi souf ay comme ay feppi cere. ni bu ko defé nak 24 heures bu jotté nak da nga daldi genn génn kenn ndànk. fekk na ki parce que fi mu waaw décité na né day day farox. bu yagge mën yak ndox mi. kon heure bi nag rek dañuy daal di ko ni ndànk rek. waaw dal koy raxas denc ko. jëmmi jamono. day jàgg ba jëmmi jamono fii ak quelques mois wala quelques jours rek boo bëggee defar reproduction moom nga fekk raxas nga ko désinfecté nga mu set ci ngay defar reproduction moo tax bassin bii ak bassin bi am na ñu door a judd fii. waaw kon nag euh, bii mooy bii rek. bii mooy waaw euh, waaye li li nekk ci bii. li nekk ci matar di wane bii nii. bu nekk ci bee. après mooy nekk fii ak. ah da ngeen koy toxal indi ko fii. toxal indi ko fii waaw. Ah, non non. Ah, am defar comme defar yu bari. yi si am kaat. Ah, bu ne ak bosam. ok benn bu ne da ngay def fee benn. yi ma yor nii yëpp ay ay yëf. yëpp ay ay ay kiliyat la. kenn ne ne actuellement yu fi ba am 10 waaw moom mooy moom euh, yii. boo seetee seen taay. matagun sax un gramme. waaw matagun ah, un gramme xam nga son bi day day xaw a lëndëm ñoom ñoom euh, kii euh, dañuy xaw a soxla lëndëm. parce que boo nitee ah, waaw leer na. waaw ah, ñoo ñoo nekk nii da nga leen gis nii cent pour cent ñi daw. na boo ñëwee fi fi mu gën a bari. fi mu waaw gën a bari. Wataay Matar fii. Euh, moom it waaw kon kon euh, euh, bii Matar Kase wone léegi nii waaw nga ne loo ci wax. waaw fi ne jën bii tey leen am bi ñu léegi tey leen am 10 am na fukki fan tey. fukki fan tey fii la war a nekk ba am 1 mois 15 heures wala 2 mois maximum. su boobaa dañuy am 5 grammes wala 10 grammes sax. waaw léegi nag li jógee fii moo jëm. waaw ah, bu ñu jógee fii. ñoom nañu génn waat yar yaraat leen fële ca yu mag ah, ca bassin yu mag yi la. wala ñu defaraat yeneen actuellement. ñu defaraat noonu rek. Ah, ñu ñu waaw waaw mais xandal nag lii mel ni xandal. waaw appareil bi moo leen tuddee aérateur. Hmm. fi ne jën bi day soxla nooy. xam nga jën li ñuy wax aspiration ak respiration. respiration moom du aspire moom day respirer rek. waaw. ni jinn mom moom bakkan ngelaw day génne way du dugal. du dugal ngelaw way nah, ah. ki nak ni muy rouler ndox mi comme geej ni muy def ay vague waaw daf koy may oxygène bu meuna bu meuna nga xamni da koy may doole. kon fim fi ni ngelaw lay indi am la. ngelaw lay indi. ko setlo eh, day rouler ndox mi. waaw xam nga façon jinn bi bokut ak jinn eh, jënuwaas bi. Hmm. bokut ko da jinn bi hmm. day yegg di wacc ak yenn day yéeg nii rek lay def nii rek lay def waaw boo defee yéeg bi ak wàcc bi bu dee diis ci moom aérateur bi da koy da koy woyofal ne day. Euh, pare bëri ci rox ba actuellement. fi ne ba 4 sorties la am na 8 sorties. Mhm. am na ba 17 sorties. Mhm. nga xam ne mooy alimenté yëpp. su ma neexee 10 bassin bu fi nekkoon bassin bu ne day am benn aérateur. waa nu ngeen def jën yi jóg. waaw loolu am solo la euh, jën bi. maam maximum bu demone ba am 7 mois jëm ko day am tay bi nga xamni dañ ko soxla day day day day am ay nen bo sélectionné di nga gis bu jigen bo am noy nooy bësi biir bi da nga gis nen yi nen yi na ay xeet yu bokul na chocolat na verte mën na génne deret wala dara su genné verte nak verte bi dafa am ñaari verte verte clair ak verte foncé verte bobu nak biñ soxla nak bu genné ok nga xamni ko nen yi matna souvent nag dañuy peese jën bi ci balance bi mooy balance électronique waaw fii ne boo gisee électronique boobu gisee day génne day peese tant de grammes 10 grammes wala 100 grammes wala 500 grammes wala 900 grammes moom da koy peese su ko peesee nag jën bi taay bi muy am bu ko koy insecté insecté leen lii mooy garab bi ñuy wax ovaprime ovaprime moo nekk nii waaw waaw moom ovaprime euh, comme masalan bu dee jigéen a wérul mu war toll nga bëgg mu gën a gaaw jur njur mi yomb ci moom suba kii dañ koy piqué rek bun bun masalan buñ peesee jën bi tey mu nekk 500 grammes ci dañu jël euh, séringal bi séringal bi fekk yow 500 grammes yooyu da nga koy multiplier par 0,5 diviser ko nag dafa am sam bu mu lay jox waaw boo ko multiplier 0,5 nag boo defee nag numéro yi dala ko jox 2,5

pratique bi ah, man man pratique bi rek man ginnaaw moom diplôme yi baax na trop. waaye pratique bi naan waaw moo ëpp solo ok waaw léegi boobaa nag eh, euh, seringue bi nañuy dugal ci liquide bi aspiré ko. kem lu toll ni li jën bi attan ci liquide. bu ko defee nag ñu xool jën bi ñu mu jën bi ma yoroon léegi. ñu pikiir ko ko. Hmm. suñ ko pikiiree nag après dañuy xool euh, température ndox mi benn jën bi mën naa xaar sept heures wala huit heures de temps wala dix heures de temps wala quinze heures de temps wala euh, ça dépend ci euh, température d'eau bi waaw ah. su boobaa nag bu ta waxtu jotee nett nag nen ba day ñor ci biir bi ok da ngay jàppat jën bi ndànk nag soo ko jàppatee nett ko ba ndox mi set euh, da ngay génne nen yi nag boo day day mel ni soow muy sotti ko boo ko sottee nag mu set nag boo ko am na benn liquide bu naa sérum sele sérum sele benn ndox la bu ñu jaay pharmacie nga dox nag mayonnaise ko. Ah, comme ni ma la léegi bassin bi euh, affaire bi ñu dugal ko si biir sotti ko si nag suñ ko sotti nag bàyyi ko tëj bunt yi bu ko dee day lëndëm day tànk gis fi ni ñu ñaqi ni <laughs> léegi maa ngi doon laaj nag euh, matériel bi waa dama maa ngi dégg lu mel nii machine waaw machine yooyu may dégg ndax euh, solaire la am courant bi waaw actuellement courant courant koy doxal waaw fi ne amaguñu xëy na sax luñ euh, jëlee solaire bi ni ngi ko ñaan yàlla liggéey bi gën a dox ban mën a alimenter solaire bu doy mais solaire dana ko man mane solaire bu demee ba am 120 degré ci courant dana attan dana attan matériel bi bu jën bi demee ba dëgër ba am 5 grammes wala 10 grammes ma man man jën mën naa demal boppam ah, jën mën naa demal jën bi dana am condition mën a yéeg di wàcc waaye moom du tax mu taxaw ndax yeneen ay ñëw waaw bu ko kii bu moment bi may raxas bassin yi ndax jën yi bu setee damay wide ndox mi génne leen ñoom nettoyé bassin yi set désinfecté lepp defaat beneen ndox bu rafet ma sha allah xaar yene nak defaat beneen référentiel nga xamne alvin yoy nak amna ñukoy jënd ci waaw ñoo xam jënd ci alvin yi mu amé 10 gram 20 gram jëm ko dañ koy jënd ci ñuy jënd ci am euh, wa Ndakaaru lañu am wa ci kaw gi wan comme kay bi nit mën nako gis am tol wala am kërëm bëgg ay jënd wala mu am boo xam ne comme terrain bi bëgg a def pisciculture te mënta def reproduction ñoom dañ koy jaay su ko defee ñoom dañ koy jaay jox leen aliment ñoom ñuy alimenté seen jën jën moo ne day màgg bu la neexee di ko ndawaloo wala ñu di jaay ah, buñ ko tuddee bu doon semence lañ ko tuddee du duy duy ñàkk léeg-léeg maanaam manqué na ci marché bi wala waaw yii moom day raar day léeg-léeg mu manqué léeg-léeg parce que diggante bi ñu juddoo bala nga leen bala nga leen mën a jaay faaw ñu mat deux mois waaw di nga leen mën a jaay nit mën naa joxe njëg sax bàyyi ko fi mais pour nga déplacement bi ak coono bi mën na indi ay mortalité mën na indi ndax coono bi duñ ko attana ko mais bu nee ba am 15 grammes nag 20 grammes 30 grammes mm-hmm. comme yéen gisoon fee léegi taay yooyu da nga gis ñu daw macha allah mën nga see génne benn sax téye ko nii lu yàgg mm-hmm. te du dee boo ko dugalaatee si ndox mi de mu dundaat waaw ñoom yàlla dogal na defee nag moment boobu nga xam ne day xaar day manqué mm-hmm. comme tey masalan bu nit mil poisson té sa capacité mil la mëna défar kena mhm. keneen ñoo soxla 2000 mille kooku day xaar 2 mois nga défar ko. waaw léegi nag. waaw loolu laa bëgg dindi ah. su ko défé suma yalla yàlla ba bassin yi gëna bari bassin yi suma ko yokkee capacité bi rek nga xamna amna ci 12 bassin ok benn bassin bu né mën na maa génneel mille lu ko ëpp mën naa ba 20000 mille lu ko ëpp su ko défé nak damay fexé nak du fi manqué. kon yéen a ngi ci sécurité alimentaire maanaam loo xam ne dañuy mën a wéeg suñu bopp suñu dund dinañ ko am te du am benn euh, jafe-jafe maanaam boo bëggee léegi euh, jën danga koy am te ne mu gën a gaawee. bu añ jotoon mën naa la ne xaaral añ dem ci mbarka mi wutal la jën bu baax dafa la kaldu dem ci tool bi ci ginnaaw dagg ci épice do sans jimbo dafa la ci lépp dafa la jën yi neex nga añ ci ba te do dem marché. do tok di xaar auto jeun bi. du ñew auto jeun bi mom du ko. ok lolu da bok ci modèle économique. xam ni da day yaatal euh, da yaatal maam masalan yi jeun yi ma yor dong suñu yalla ma ban am doole man ko exploiter ngent gépp man na leen jox jeun ngent gépp ma motax ma don laaj xam nga euh, lu demé ni ñepp mën ci jaruñu kon dafa wara yaatu wara bari legi nak ndax kuréel yi ñi taxawal manam dem ci lepp ci bank yi ndax lolu tollu ngeen ci am yéen ngi dem ak seen bop rek. waaw ñu ci am ay xalaat nak batay nak maangi ngi dem sama bop batay maangi maa di dem sama bop damay def man luma am rek de dugalaat ci am dugalaat ci boo defee ñoom it luñ génne ma xol la ci xaj mu dugalaat ci la ci dess ñu xol fu ko ndax ci lañu jëne matériel bi. ci la ñuy jënd aliment bi aliment bi dañ koy jënd ci la ñuy defar yëpp bu demee nag ba nga xam nag matériel yi daj na yëpp dañu lu génnaat nag day mën a épargner wu nekk ci nekk ci bëri waaw waaye actuellement bu ñu gisoon financement bu am doole nag daf ñuy dimbale ndax masalan boo dogu woon ni da nga bëgg a jox kees gépp jën loolu moom fond bu rëy koy def fond bu rëy moom di nga jënd ay tonnes aliment defar ay reproduction ay reproduction yu bëri. ngi ci tànk yooyu pour mën a am loolu. maa ngi ci tànk yooyu ñu ngi ci tànk yi di dox foofu mooy sama vision fi ñi ñi nga ñi nga góor ci ñaari at ak quelque bëgg naa bu ma yàlla dogalee bala am 5 ans wala 10 ans bu ko defee ne fu waay rek boo ñëwee mën ko fa fekk. waaw ngent lay dem rek. loolu laa bëgg nga xam ne moom boo soxlaa alvin mooy yu ndaw yi boo soxlaa yu am 200 grammes 300 grammes di ko fi mën a am boo soxlaa yu am 500 grammes jëm ko boo soxlaa yu am 1000 gramme dama bëgg mu bari fi lool nag. moo waral waa Sire Makumba man fii jënd si jën. waaw mu ngi si bu ko defee dama ñëw dama ñëw teel fa dinañ indil jën. su ko defee nag am na sànc boo booy gis fee si biti lii moo ko waral xam nga fii dafa xat boo seetee quatre bassin rek moo fi xaj fee calculé na douze bassin xaj na fi waaw. waaw ñu lay jàppale nag gis naa nag jëwriñ ju fi nekk. waaye ñu lay jàppale nag ci liggéey bi. waaw ki fi nekkoon léegi suñ ku mel ni Malick Lom naa la ko woon léegi bi ñuy tabax fi moo ñu jox ndox mi. mooy jàppale ci lépp wax dëgg yàlla ak i conseil ak i xalaatam ak kilifa yoo xam daal seen xalaat di ci jukk ba noppi nag di ko yaatal kon xam ni soxla nga ko ak antenne ñi di ko jàppale loolu lépp ñu koy def kasaal bu soxlaa tabax yi maçon yi am nañu maçon yoo xam dañuy ñëw jàpp ci liggéey bi ñëw ci ne ñooy tabax bassin yi ndax man bassin bassin bi ma bi ma njëkkee xam liggéey bi bi ma njëkkee bëgg liggéey bi te xamaguma ko man maa defar sama expérience defar bassin bu gudd boo xam ne tabax la dama woo maçon bi maçon bi ne ko kay mu rëdd rëdd bu gudd ne ko 10 sur 7 la bëgg a bassin mun ma loolu ëpp na loolu mënoon loolu ba su defee ndox day toj man ko déedéet mu wax wax ba ma wàññee ko def ko 7 7 7 mètre 50 sur 4 mun ma ëpp na man ko baax na moom en tant que maçon moom defee ne ndox da ko attan man xam naa ne ndox attan na ko mais ñu defar ko ak samay xalaat ak ak dooleem xam-xamam ak samay xalaat dafa mooy bassin bi nga xam ne fii la jëni yi mag yi nekk tey 5 tonnes mën na ko def cinq tonnes juróomi tonnes. waaw juróomi tonnes ci ay jën bu fi jën màggandoon mën na mat cinq tonnes kon masalan tey boo calculé woon benn jën cinq mille ba muy mille jën mën na fi xaj te fi tam mën na ko parce que fii man seet naa ne cinq mille jën bu ne am cinq cinq kilos xaj na fi. waaw bu gën a fu mu jógee jënd si fii jën. waaw am na ñu fi jóge Dakar jënd si fi.